asalaamaaleykum ami internetu Dakar Buzz jot nañ fi kon sànq benn xibaar uh, gu soxal kawteef gi nga xamante ne amoon na fële ca Kounoune uh, quartier Air France si fan yi nu génn uh, Souadou Ndiaye kon tey ji daal dinay avoué crime boobee mu def bu ñu sukkandikoo ci délégué de quartier bi di monsieur Ndiaye ba ñu ko dégloo ca commissariat bu Sangalkam moom Souadou Ndiaye mi ngi xamle ni moo soodee gorom bi di Khady Diouf ci kaw fauteuil yam kon la ko fekk soodee yaram bi ba mu yàq ñàkku yaxet laataamu ko doggali diri ko ba ca salle de bain ba dal di toj lavabo bi mu ko dóor ci bopp loole nag nekk avo yi nga xamante ne Sawadou yi moom la jot a def ñuy xaarandi rek l'enquête bi di daal jeex